jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalate leen ak jàmm ñu door ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti partie yooyu nga xamante ne si daati nan def seen cérémonie investiture daati investir ko nga xamante ne seen rek moo di président Ousmane Sonko tof rek mu doon seen candidat élection yu ñu dëgmal 2024 ba pare nag boole ak message bu am solo lool jëmale ko si conseil constitutionnel mooy nag saas yooyu nga xamante ne si ne ñoo nekk foofee nag toore ak ka di Moustapha message bu mu jàllale moom nag xam lan ne jàmmi réew mi ki jàmmi askan wi rek jamono ji ma nga nekk foofee rek sa conseil constitutionnel su ñoo nga xamante ne si rek ñoo yor dossier yi Ousmane Sonko moom kooku di Moustapha Guirassy di wax rek jàmm rek lan ñu bëgg si réew mi te jàmm rek la ni sàkku tamit si réew mi ginnaaw ba nga xamante ne si ne moom ak candidature am daf ko mujjee bàyyi daata rek ñëw bëgg rek jàppale ki nga xamante ne si ne rek moo di président Ousmane Sonko ndax moom jàpp na ne réew mi moo ko ñor ah, te mën naa ànd ak ki nga xamante ne si ne moo di président usman Sonko ñu àndandoo defar réew mi moom kooku di Moustapha Guirassy ñu jàllale message bu sol solo lool jamale ko sa conseil constitutionnel conseil constitutionnel moo yor dogal bu mujji jamono ji lu yor si wàllu mbirum Ousmane Sonko ndax dina bokk si élection yi wala di si bokk lu si mën a xamit danañ si xam balaa yàgg dara lu leer